lu am solo loolu nga wax ci wàllu euh, Pape Djibril Fall mais aussi euh, duñ wax ci ay élection présidentielle te dugguñ ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko bien vrai que sànq wax nañ ci président Macky Sall euh, que ne mënul bokk ci l'élection mais instant bii nii Sonko dafa nekk ci maanaam. Euh, jamono jii ni ñu bëri dañuy dute est-ce que Sonko dina bokk ci liste yi est-ce que dina bokk est du bokk loolu nekk loo xam ne jaaxal na askan wi parce que di dossier yi nga xam ne ñoo nekk ci ndoddam jamono ji bëri na askan woo xam bëri na ci ñoo xam ne jamono ji am na benn tiitaange boo xam ne am nañ ko waaw xam nga dafa am lu ci am parce que sunkoo bi nga tudd sax parce que xam nga Sonko ñu bari ñu ngi koy dèjà ñu ngi koy diaboliser mhm. kanaan murit laak du murit ak xam nga nit ki kenn xamul la moo nekk ci sa xol te pourtant man li tax man ni affaire yi maanaam dañu ciblé Pape Diouf Fall bi ñuy wax nii Pape Diouf Fall du woon murit hmm? waaw Pape Diouf Fall du woon murit après la ñëw dugg ci mouridisme ah bon bien sûr pour ça am na ñoo xam ne ñii fi xam nañu ko mais waxuñu ko mais Sonko la ñuy waxal quoi parce que xëy na Sonko moom mooy déranger en fait mais Pape Djibril Fall mi ngi may dégg ñu nga xam ñu ngi may dégg du woon murit dafa ñëw dugg ci boo ko xoolee nii dafa nga naan euh, mais xam nga loolu du ci dara parce Touba maanaam ñëpp la xajoo kenn ku mënti doon segam ñi nekkul jullit sax ñooy ñëw tuub nekku murit mu mm-hmm. jël leen uuf leen asumaak boo xam ne mais jullit nga ba pare loolu maanaam pour lu tax mu wax loolu mooy débat yooyu waruñu waruñoo intéressé waruñoo yitteel parce fii kenn ku ci nekk am nga droit mm-hmm. boo gisee ku loolu day nga dem fa mais lan moo tax ñu bëgg a asarne wu ci diw bi bëgg a bàyyi diw bi nii mm-hmm. loolu moom moo mat xool parce que bu fekkente ni asarne ah, dañ ko waxul mais ñu bari nañu ay yedde politiciens yoo xam ne ngi ci langue gi ñoom xam nañu baax a wax que ni Pape Djibril Fall du woon murid dafa dem dugg ci mouridisme mm. après gis nañu tamit euh, positif gi mu ci am très loolu dañ koy saluer parce que nag murid mën nga ci juddoo màggee ci keneen dikk jógee fa la ñëw ëpp la ci téeméeri kon loolu mm-hmm. du ci dara loolu dama ko ci doon wax rek mais pour ñëw ci Ousmane Sonko bi nga xam ni jamono ji ñuy wax que ni ay dossiers yu bare bari ñi ngi tegu ci kawam moom euh, ki nga xam ni moom mooy euh, Ousmane Sonko mhm. euh, nga xam ni benn bu ci ne ñi ngi njortu xëy na mën nañ ko ci takkal cax man li ma gëm mooy te xam ko mooy Ousmane Sonko de wax dëgg fa neex yàlla mhm. mën nañu ko tere mu doon candidat maanaam même bu ñu ko koy tere mën nañ mhm. état parce na am na pouvoir bi mais tere ko ko ba pare nag dem mhm. toog ci jàmm ak salaam man loolu laa jàpp ni moom moo jafe parce que mhm. jamono ji fi ñu toll mhm. du ñun du keneen mais sénégalais ci boppam ñoom ñoo ko décider kan yi Ousmane Sonko ñoom mënuñu concevoir wala ñuy accepter yenn élection présidentielle yoo xam ni dañu koy organiser fii ci Sénégal sans ki nga xam ni moom Ousmane Sonko effectivement foofu lañu toll parce que euh, li tax te loolu ñoom ñoo état bi du Sénégal ñoom ñoo ko ko may que am na nu ñu doon doxale ak moom Ousmane Sonko mën nañu ko teg benn dossier tëj ko ci dara du jub mais le fait que dossier Sweet Beauté bu ñu ko teg ci ay tappale yi kese kese kese te lu jiitu loolu ay ñu rajee ko li mm-hmm. ñu ko doon def ci assemblée maanaam ay ay ay xeetu Euh, acharnement yoo xamante ni si ni Sénégalais yi ñoom dem nañ ba xamal seen bopp que ni lii nii. Mhm. teguwul fenn dañu tooñ Ousmane Sonko kese kese moo tax ma yi mhm. loolu daf ko may pouvoir boo xam ni askan bi même su Ousmane Sonko tooñoon. Mhm. waxuma ni moo tooñ de même su tooñoon ñu daan ko sa askan bi moo dañ naan dañu ko jaay doole dañu ko def justice parce que nit ki da nga dëkk ci tooñ di tooñ di tooñ ba mujj gi bu ñu la tooñee sax dañu naan yow yaa tooñ nit ki da nga dëkk ci ñu lay tooñ di la tooñ di la tooñ ba mujj gi soo tooñee dañu naan dañu moo tax kenn mënul benn Sénégalais fi mu ne nii ak loo mënti wax. Mhm. lenn rek la ñu lay wax élection du fi am. Euh, te kii Ousmane Sonko bokku ci moo tax ma ni. Mhm. président Macky Sall puisque yenn dossiers yi nga xam ni ak ñenn ñi nga xam ni nee nañu bu leen laalee ñu taal dëkk bi na mhm. xam ni dorénavant kii di Ousmane sunkoo bokk na ci te war na ko mën a bàyyi xel bu baax a baax ba euh, du ko. Euh, def yëngal ci moom dara leen loo xam ne dafay taal dëkk yi parce que effectivement mhm. man gëm naa ne ñoo ñi muy wax naan moom moo ci teg conc parce que dañoo nar a taal dëkk bi kii moo leen gën a wex xatt fuuf que mhm. moom moo leen gën a positionné ca ki ci ko ñu laal ko pour ñu taal dëkk yi moo tax ma ni instant bi nii mhm. parce que nag xam nga juriste yi moom kenn ku ne yaa ngi xool loo lay naan mën nañ ko ci tëjëk wala mënuñu ko ci tëjëk ainsi de suite ainsi de suite mais li ma ci wér xam ba des te parce que boo xoolee tamit chamboulement bi am ak mhm. classement bi nga xam ni def na ko ci fële ci magistrature Amélie Diouf bi nga xam ni pacifié pacifiens yi dañu ko jooy ba tas mu yóbbu ko cour d'appel nga xam ni tey bu ñu ko condamné Ousmane Sonko fa la jëm mais ñu bu jógee foofu war a dem ca njobbaxtal dèjà da jaar ci procureur Abdou bi nga xam ni ñu bari xam nañu ay jaar jaaram ba pare nga jógee fa boo bëggee bu ñu la condamné nga war dem cour d'appel yoo xam ne amuñu benn confiance ci moom ba ci yenn sénégalais yu baree bari sax nga jógee fa dem cour suprême bi nga xam ni euh, Siré Ali Ba moom moo fa nekk nga xam ni foofu mooy njobbaxtal kooku euh, wax dëgg fa neex yàlla itam dafay tey xel bu baax a baax ñenn ñi ngi noonu en fait moo tax ma ni Sonko kon jamono ji nii moom moo nekk leader boo xam ni instant bi mhm. sénégalais yu baree bari bis bu ñu ko condamné ci justice bi ma gis. ñu bari mhm. mën na jàpp nii dañu ko jaay doole te loolu mën na jur fitna mën na yee mën na yee fitna moo tax ma ni encore une fois. président mhm. Macky Sall puisque jàmmi Sénégal moom moo ko tax a jóg te. ku ko waxul lii na xam ni mm-hmm. mi ngi koy nëbbu li am mooy que Ousmane Sonko su bëggee jàmmi Sénégal na ko bàyyi nii mu nii mu nekk bàyyi ko mu bokk ci ay élection bu ko Sénégalais yi fal ñu fal ko buñ ko falul ñu xam ni Sénégalais ñoo ko falul mais mm-hmm. bëgg ko jaarale ci justice wala bëgg ko éliminer ci ay élection yoo xam ni moom Ousmane Sonko mi ngi ci réew mi te du bokk loolu mën na jur musiba bu rëy rëy rëy ci rëy moo tax dossier téeméeri dossier wak dix dossier ñoom ci yam Ousmane Sonko ci boppam moom moo toll niveau boo xam ne te ñoom ñoo ko ko may comme ni mu ko waxoon au début que ni euh, élection yoo xam ni mën na ko mën nañ ko am fii ci Sénégal te du ci bokk loolu musibal bu rëy la ci réew mi élection Sénégal te Ousmane Sonko du bokk loolu lan la mën a jur fii suñu réew Sénégal dayoo d'après dayo bi nga xam ne am na ko ci jeunesse bi d'abord il faut que ñu nekk au pouvoir ñu accepter que Ousmane Sonko réalité politique la mais il n'accepte toujours pas que Ousmane Sonko est une réalité politique Ndeya on a subi des contre-coups manifestations événements mars yi. y a mm-hmm. eu des morts. Mm-hmm. Sénégalais yi dañu gis injustice bi nga xam ne ñi ngi ko doon teg Ousmane Sonko mais loolu moo tax ñu génn. voilà il y a eu quatorze morts. Mm-hmm. mais benn message rek nga doon dégg. bu jugee ci peuple bi non à l'injustice. Ah. non. ah la manière dont suñu démocratie ñu ngi koy bafoué gis nga Ndeya on n'est pas au Far West il faut le dire mm séparation des pouvoirs mm -hmm. on a des juridictions et des lois ouais. justice moom mooy àtte c'est pas au président Macky Sall de dire àtteel diw wala bul àtte diw mais su ñu gisee encore une fois jamono yu ñu nekk ni acharnement bi bi bi am. Mhm. au niveau de Ousmane Sonko ak chamboulement total dans la magistrature. Mhm. il faut le dire pion yi nga xam ne ñoom la ñu teg déjà c'est pour valider le projet Macky Sall et pour liquider ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko pour que du bokk ci élection yi. Mhm. parce que il faut le dire si jamais il si jamais il se présente en 2024 c'est sûr que il sera le futur président de la République du Sénégal moom. mën na ko bañ a doon itamit. non mais. déjà y a des sondages qui ont été faits. Mhm. y a des qui ont été faits. Mhm. loolu sénégalais yi ñoom xam nañ ko. y a des sondages encore une fois qui ont été faits man c'est ma conviction. waaw ça c'est vrai waaw donc si si il se mhm. présente donc loolu noonu waratul nekk débat léegi Kébé mi ngi koy wax la justice ne doit pas être instrumentalisée c'est-à-dire que justice bi dafa war a équilibré justice bi dafa war a wax droit. ñun ñëpp sénégalais yi loolu lañu siy xaar. Mm-hmm. léegi nag dafa am ay rapport yoo xam ne génn na. ci mm-hmm. biir rapport yooyu noonu on a parlé de la justice sénégalaise. moo tax gis nga fu mu nekk nii. Mm-hmm. l'opinion nationale et internationale dañu ibbi seen bët di xool nan la justice bi di fonctionner. léegi y a un dossier boo xam ne euh, procès bi waxaguñ ko c'est-à-dire Adji Sarr Ousmane Sonko. Mm. mais bis bu ñu waxee date. ci dossier boobu noonu mais boobu est dina amagum dat benn benn kii bu ndaw entre parenthèse bu ndaw est dina amagum date jamono ci parce que ñu ngi wax que ne Adji Sarr dafa dafa dafa dof walla Adji Sarr dafa dof moom mooy lan mais man je me focalise sur des si ay kàddu yoo xam ne c'est des personnes qui sont autour de Adji ñoom ñoo koy wax. y a des compétente ak ay euh, nit yoo xam ne tey jii ñoom ñoo war a prôné ci wàll boobu noonu. donc mhm. moo lay wan nekk il faut qu'on soit léegi nag suñu ñëwee ba moment bii nii ne Adji Sarr dafa dof si ñoo xam ne ñoom ñoo ko wër moo lay wan nekk ce dossier ne tient plus. Mhm. ban dossier moom la ñuy gën a wax dossier euh, Ousmane Ousmane Sonko ak Mame Mbaye le pouvoir état bi am nañ doole boo xam ne ñoom ku ñu bëgg a bëgg a liquider mun nañ la liquider. Mhm. Ousmane Sonko ce qui s'est passé à la corniche mais jàpp nañ ko ok mais mhm. Ndeya. Mhm. ils peuvent aller récupérer Ousmane Sonko quand ils veulent mais nañu delloo si waat seen xel ne que bi ñu jàppee woon Ousmane Sonko événement mars yi il y a eu 14 morts. peuple bi ñoom ñoo génn et que mm-hmm. am na ñoo xam ne suñu àddulu woon si mbir mii nii kon ba tey yore des problèmes actuellement ba tey ñu ngi ñu ngi ñu siy topp day il faut le dire donc mm-hmm. nañu ressaisir waat encore une fois bon gouvernance bi nga xam ne ñi ngi ko doon prôné ñu appliqué ko depuis le début de cette affaire mm-hmm. c'est-à-dire que il faut qu'ils savent que ñoom ils sont à la fin de leur mandat li si des bëreetul c'est-à-dire le président Macky Sall d'abord il doit s'exprimer sur affaire troisième mandat bi génn wax sénégalais yi que man je ferai pas partie ñu jëm si ay élection mhm. transparente ñi war a présenté wu présenté wu ki war a nekk président Euh, Sénégal sénégalais yi vote ko. et que ñu continuer si suñu développement. ak mu ci doon rek sénégalais yi ñooy daal di euh, ñooy daal di voté. ku leen mm-hmm. neex ngir ñu teg ko seen bopp réew ngir tamit euh, jàmm ji nga xam ne Sénégal soxla na ko. ñoom mm-hmm. ñooy xool ana ci kan la daal di jekk ngir ñu daal di koy jox seen sànni ko seen ay carte waaye nag bu ñu jógee foofu noonu dañuy daal di dem ci njiitu réew mi président Macky